<laughs> Ndiaga la seen visité. ah ko gisandoo de lii moom neexu si xol moom. waaw ni nga ko gisee nañ ko gisee rek. ah kon lii rek li fi xew. toog waaw ñoo nañ daal xama rek borom doole daal ñooy xeex ak koo xamante ni daal moo ko ëpp doole. waaw lan nga gis lu ma gis moo sañoon daal du demee nii. bu ma sañoon daal du demee nii daal. waaw dama gis daal oto bi daal ñëw di daaneel. benn sa kër goo xam dañ doon ko waaj a defar ñu koy daaneel te vraiment ak image bi daal rafet vraiment rafetul si dëkk sëñ bi si Touba. non lii daal vraiment waroon am si dëkk bii ndax dëkk sëñ Touba ne. waaw di sàkku lépp rek mu dal te xam ne lii dëkk sëñ Touba la te lii war fi am image bi dafa ñaaw waaw image bi daal dafa ñaaw vraiment rafetul si dëkk sëñ Touba bi ñuy gis rafetul waaw ma sañoon daañu def ko yëpp taal yëpp taalibe ndax oto bi ñëw na fi ay côté 19h commencé di daaneel mais mënul woon sotti parce que heure boobu heure wàcc la oto yi di dem ak ñëw munul arrière mu dem ba ay 23h minuit mu ñëw commencé di yàq dafay nur affaire ginnaaw quoi après police ñëw xam nga kon def mel ni kon yëgoowuñu woon daal kon affaire bi am na am na am na am na jaxasoo daal lii nag moom wax dëgg yàlla war nañ koy daw surtout ay kilifa waaw lii lu mel nii ci biir dëkk bi fii nii fii Touba fii nii war nañ ko daw surtout ay lii ñaaw trop. ñaanoon trop kër gu tol nii ñu di ko tabax ba mu toll fii ñëw di ko daaneel waaw bari na trop kay bari na trop bari na trop ndax wax dëgg yàlla ciment euh, ak xeer ak suuf yooyu noonu ñett yooyu ku leen boole moom boole nga ay mbër ñu ñëw di waaw waaw tabax ba tabax ko ba romb fondation ba taxawal say poto ñu xëy xëy daaneel ko wax dëgg yàlla métti na trop métti na trop yi war nañ koy daw surtout ay kilifa ñu ne ay kilifa ngeen war nañu daw yen yi yenn yi ñun sax xanaa dépensé nañ ko lii moom war nañ si jóg ah. lii ku ko xool xam ne dafa ñaaw fekk kër gu ñu def ay millions benn waaye jóge fële ñëw di ko daaneel nii police ñëw na fi sax bi fi ñëwee dañoo ñëw xool ñu yaakaar ne dañuy taxaw pour lijjanti ko jékki-jékki gisaat oto yi dem biñ toogaatee di waxtaan ba ay zéro heure la ñu gis euh, oto yi wàññeeku ah, jaar ci tali bi wàññeeku ñu commencé ko dikk di ko def nii quoi di ko daaneel di daaneel lu toll nii di ñaaw na trop gis-gis ak dëkk bi ni mu toll nii lu toll ñu ñëw def def lu ñaaw lii ñaaw na trop daal ñu ngi koy ñaawlu. waaw yu mel nii nag moom comme que dëkk bi dañ ne dëkk yërmande la am na yoo xam ne bu ñu koy def war nañ cee mën na waxtaan ba diisoo ci donte waxtaan nañ ci ba diisoo ci tamit boo boo xoolee li xam ne diisoo mën na cee ñàkk ndax dañ koy defe nii am ku jóge fee ñëw ne ñu ko yàq waat police ñëw jékki-jékki dem kon diisoo yaakaar naa des na ci xalaat nga ne rayante mën waaw xam nga bu am na yenn heure yooyu ñu ko doon def rek rayante mën a ci am ndax euh, coow amoon na fi sànq bay ak police ñoo fi après ñu jàll gis ñu fi coow ñu kon ne dem après bi ñu toogee ba nit ñi commencé tëdd ñu ñëw doo def lii.